ma ci mën a wax mooy ñu mënta dem nu ñu ni di demee PDS noonu la ñeneen di ñëwee donc loolu wax dëgg yàlla man sam bopp ak jeunes yi sentir ko parce que nag adhésion yi tamit bëri na lool xanaa kay ñi am tur ñooy dem ñuy dëgg ñi wax ñi ci wax lu bëre waaye ñuy adhéré bëri nañu trop si biir seen dëkk bi te ñun gëm nañu ni. ah ay militants cent militants yoo xam ne kenn xamu leen ñi adhéré si parti bi moo ma gënal nag benn militant bu am tur buy dem wax dëgg yàlla PDS dafa nekk parti boo xam ne am na doole fu ko mettre Abdoulaye sànq daa diis lool ba nit mënu koo néewal doole te ñiy wax rek ni ñuy dem bu Wade créer parti bi ñu ci bëri fekkewuñu ko te taxut Wade ñëw na ba au xanaa kay si baaxam rek la meññ ñu bëri tur bu ñu demee tamit xayrul parce que lu ñu concerne ñun mi des fii si biir parti bi mooy liggéey proposer sénégalais yi projet société boo xam ne bu ñu gisee ànd ak ñun parce que en réalité responsable falul nit responsable falul président population yi ñooy fal tey jii nii boo jëloon responsable dëkk bi yépp nga ber leen na côté ku ñuy àndal bu deful programme boo xam ne mën na neex sénégalais yi kooku du mës a falu donc tur falul nit luy fal nit mooy wax nit ñi lu leen doy wax nit ñi loo xam ne mën nañ ci téye te ñun ñoo gëm ni PDS lu ñu met war jàngal mooy dëkk da koy liggéey dëkk da ngay liggéey pour xool avenir bi xool nu muy émerger te ñun at yooyu am nañ ko am nañ fi ay nit capable yoo xam ne mën nañu yor réew mën nañu fi proposer loo xam ne dina doy sénégalais donc amul lu ñuy tiit si dem mas Masamba wala ñëw ma Mademba. munoo woote dialogue ba pare ngeen noot nit ñi euh, lu ci gën a euh, fës fan yi Aïda Mbodj mi présidente euh, conseil départemental bu Bambey dañoo xëy bés wàccee ko te lu ñu ko wàccee teguñu ko si yoon yoon mayu leen ko mais mbir jaay doole rek lañ def. bu ñu dem référendum Macky waroon na mën a toog waxtaan ak nit ñi si point référendum bi même bu ñu d'accordul sama ñi toog waxtaan nu ñu demee référendum ñi waxtaanee ko waaye gis nañu ni référendum bi moo jàpp datam def ko en moins de un mois xëy ñëw même bulletin ñu defee référendum bi dafa imposer waa opposition couleur rose donc bu ñu fi nekkee ba tey mosul poser benn act boo xam ne mën na dalal xel nit ñi. donc en tout cas nañu ñaanal te jàmm rek. en tout cas lu ci euh, fii ak ay ay ay ay ay ay ñaari at PDS na dellusiwaat au pouvoir loolu dañ ko gëm incha allah.